J'ai retrouvé après plus de 11 mois de détention, quasiment un an, et me réjouir de leur résilience, de leur endurance dans l'épreuve et rendre grâce à Dieu de les avoir préservés jusqu'à mon retour. Je voudrais remercier tous les Sénégalais qui se sont mobilisés pour le respect de cette échéance, pour défendre la démocratie sénégalaise et nous donner l'opportunité d'exprimer tous le choix de la personne qui va nous diriger pour les prochaines années. Je viens d'accomplir mon devoir de citoyen en toute sérénité, euh, avec une certaine ferveur, parce que je suis dans mon village. Et ça fait déjà bientôt un an qu'ils ne m'ont pas vu, ce qui est exceptionnel depuis que je suis né ici, que j'ai grandi ici, je n'ai jamais fait plus de trois mois sans arriver dans ce, village-là. Je comprends alors tout cet engouement autour de ma personne, cette ferveur et cet accueil-là. Et je les en remercie beaucoup. J'en suis très reconnaissant et j'en suis très touché. Euh, l'élection présidentielle, dit-on, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Mais nous avons réussi à faire de cette élection la présentation, le moment de, la présentation claire d'un projet de société à une société, à, un peuple appelé à choisir fatalement entre la continuité et la rupture. Et d'ici quelques heures, on aura le verdict de ce choix-là. Je demeure confiant quant au choix pour la rupture que je suis ami, même d'incarner, mieux que quelconque autre candidat. Je suis particulièrement confiant au regard de l'Alliance populaire qui nous a accueillis partout au Sénégal, à l'aube, comme tard dans la nuit et dans la chaleur euh, de la, de la mi-journée, pour nous exprimer toute leur adhésion au projet que nous leur avons présenté et qui n'attendaient que ce jour pour exprimer solennellement leur décision et je demeure convaincu que cette élection-là se jouera dès le premier tour. Je voudrais finir pour dire aux autres candidats, comme j'entends le faire euh, en ce moment, d'appeler au calme. Parce qu'en définitive, il n'y a que des Sénégalais qui votent. Pour se choisir un leader sénégalais, et il n'y a pas de raison qu'à l'issue de cette journée, que la tradition ne soit pas perpétuée, à savoir que le vainqueur soit félicité par les vaincus

fekkat fi samay wajur ni ngeen len gisee sen at yi xaw nañ sori waye yalla sam na len ak metit bi ñu muñ ko euh, wat ci mom ba mën len fekkat mën def sama sama devoir citoyen manam wote gis ngeen tamit wa dekk bi niñ ma terto waye lima mëna comprendre la parce que fi la judo ya 44 ans ci ganaw ni ngeen ko xamé minuit bu duggé sama anniversaire duguna na né le 25 mars 44 euh, ans yoo xam ne mosuma toog def 2 mois yu ma toog yu ma ñëwul ci dëkk bi bu baree ba bare kon bu ñu toogee daanaka toog fukki weer ak ñaar yoo xamante ni gisuñu ma ma ñëw tamit ak statut de présidentiable candidat à l'élection présidentielle nii rek la mënoon demee parce que fii samay maam samay xarit samay waajur samay dëkkandoo di village bi ñëpp ay mbokk lañ donc euh, seen doom lañ teertoo teertu gi te nii rek la mënoon demee Euh, tay nak ñu ngi woté waaye woté gi lu ñu may moy taxaway bu sénégalais yi amoon il y a quelques semaines pour xeex pour que élection bi nga xamante dañ ko bëggoon toxal ñu jëmal ko laata mandat président bi fi bi fi nekkoon di jeex muy le 2 avril xeex bobu dañ ci rendre hommage delloo njukkal bu baaxa baax le peuple sénégalais parce que li ñu am ni tay c'est résultat wu la kon bu ko koo moy le héros de la journée c'est le peuple sénégalais boo xamante ne dafa tenir à ce que ñu respecter sa souveraineté se moment de solennité bu muy tànnee kan moo koy jiite def ko ci kóolute war ko def ci dal ci jàmm parce que ñi fi nekk di tànn ay sénégalais lañ ci ñi ñuy tànn ay sénégalais lañ jarul xuloo jarul xeex jarul xiiroo jarul ŋaayoo li suñu ñaan ñu koy ñaan sénégalais yi di ko di ko ñaan yàlla d'abord di ko ñaan sénégalais yi di ko ñaan tamit candidat yi nga xamante ne xëy na ni ma def nii ñu ngi daana def noonu ñu wooteeg jàmm parce que ba fi sénégalais xoosoo rek ab sénégalais ko xoos te beneen xoos te loolu lu ñu war a moytu la sénégal at yi ak weer yi surtout fitna bëri woon na fi tension bëri woon na fi féewuloo bi bëri na fi te président de la république bi ma bëgg a doon mooy bu ñëwaat doon président puso buñ ko mënee woowee noonu di rab ñu rabaat diggante yi tappewaat xool yi boolewaat sénégalais yi pour ñu mën a jubloo ci liggéey ma yaakaar nag ñi nga xamante ne yàlla dina leen natoo ndam ñu am humilité boo xamante ne dañuy xam ne ndam li sas la waaye du mérite personnel sas la yaakaar la bu ñu teg seen loxo waaye du mérite personnel yaakaar gu ñu warul trahir jamais bu ñu warul wor la waaye du mérite personnel ndax fu ñuy jaar pour egsi ci fii fu metti la ay bakkane ci roj ay nite ci dem kasu ay nite ci fas ne jaar nar nar cee jaar laago ba abadan lol mo nara nek en tout cas man président bi mo nara nek euh, sama sama sama busol suma ko mënee waxe lu manam fima tegg sama beut te di fa diko di ko pour mu doon lo xamantene dotul amati ci Sénégal abadan daay parce que lu ko soké fassé nañ ko songu donc euh, di wote jam di wote wat jam di water jam jam, te di am yaakaar ne euh, bu ngone joté niko ko niko ko Sénégal en 2000 ki fi nekkone féliciter ki gagné ni ko Sénégal défait 2012 ki fait Nékon félicité ki gagné Non, la wara démé tay parce que suñu génération warul def moins que ses devanciers dañu wara a tamit dégluwante top scrutin bi ànd ci toute la bonne foi qu'il faut et l'acceptation du résultat bu ko défé jamm ju ñu bëgg dina am de Sénégal luñ ko xamé way bi dina gëna rafet ñu mëna a jublu ci liggéey bi bu ëllëgee ndax urgence yi bari nañ situation dëkk bi metti na te c'est des défis yoo xamante ne amuñu temps bu ñuy xaar pour bañ leen song à euh, bras corps pour mën ko dindi ndax sénégalais yi sonn nañu. waaye incha allah rabbi tey la seen rongoñ di fer bu soobee yàlla. donc déglu ngeen ki nga xam ne moom BBC Euh, voilà ni ngeen ko gisee euh, président ba Bassirou may fay voté na ba noppi def euh, déclaration wan na laata nag dem na këram dem nuyu ji papaam nuyu ji ay way juróom te papaam bénir ko ñaanal ko mu door ñëw voté si waaw loolu nag moom maa ngi voilà léegi vote bi jeex na ne fi mu nekk ay soxnaam ñooy dem voté après ko defee ñu delluwaat Ndakaaru ñoo ngi ci porte bi ñoo ngi ci porte bi janvier no no Yeah.

ana pick up press gis naa ko léegi nii. ñu ne ñu ne si ma ci kanam ma ci pare. non du biiree beneen bi la. non ne ah ñu nekk. nga nekk moom nekk. Euh, ah xaaral ah, waaw xaaral xaaral si benn organisé.